moo xew ci biir réew mi ak ci lenn ci réew yi ñu génn muy li ñuy wax zahira zahira mooy lu ngeen ci def phénomène loo xam ne lu xew la te kenn xamul lu doon mooy ñi dugg ci biir gaal yi di dem bitim réew ngir sàkku ji alal lu ñu dundale seen njaboot ak lu ñu tedde ba xam ngeen li xew lépp xew xew ci muy jéye ju rëy rëy te alxuraan benn bakkan bu faatu rek lu diis la man qatala nafsan bi xayri nafsin aw fasadin fil ardi fa kaannama qatala nnaas jamiian wa man ahyaha fa kaannama ahya nnaas jamiian kon benn bakkan du faatu rek lu diis la ci suñu borom waaye lu diis la ci sëriñ bi nga xam ne tey responsable bi responsabilité la ci nekk ndax képp koo xam ne ñëw nga ci moom kat yaakaar sëriñ Tuubaa dama koy wax ne ko dama laa jébbal sama bopp àddina ak alaaxira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 kon mi ngi ñaax nag ñi nga xam ne ay taalibe Sëriñ Tuubaa te digal ak tere képp la seq ñoom képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa nga xam ne lii du sa cër ndax lii li ñuy def xaru la te alxuraan dafa wax ne famshu fi manaakibihaa wa kulu min yi kon jug sàkku ji teraanga lislaam da ko santaane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 du mën a jëf du mën a lekk du mën naan lu weesu la ko suñ borom wërsëgal ci wajoo saa su saa su xëyee rek di gën a màgg di yokk kon loolu lépp suñu borom da ci jàngal doomu adama ngir mu war def ndànk-ndànk ak war a ak war ak war a def sëriñ bi nee na mi ngi jaale ñëpp ñàkk seen bakkan ndax am na benn dëkk boo xam ne kat lu ma ñaar fukki nit nañ fa te ñëpp taalibe suñ tubaab yi kon loolu diis na mbokk mbokk jullitam yi mu bokk réew mi itam te yaakaaru suñ tubaab te bokk ci itam ku ci faatule ma ngi ànd yow naqari di ko bokk yow di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp itam yàlla def jàmm ci réew indi fi ak dal dal gi mu tàmbalee ko ci xel yi ak xol yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa